dafa amoon kenn ci jullit ni koo xam ne dafa mas a ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sàkku ci moom mu ñaanal ko ngir mu am alal dafa ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sàkku mu ñaanal ko ngir mu bari alal kooku nag mën nañoo tudd turam ndax mooy saxlaba saxlaba ibnu xaatib al ansaari yi mufassiroon yu bari moom la wax ku mel ni ibnu xabaas moom la wax xasanul basri itam moom la wax ak ñeneen ak ñeneen waaye nag ku mel ni albani moom moom setal na ko ci loolu ndax ne naa naafiq gi yàlla tudd ci aaya bi daal moom du ko askanale ki nga xam ne mooy sànla ba ndax lim xamoon ci moom mooy ku baax la maanaam daal layal na ko ci nanguwul ne moom la donte ka nag moom saxal na ne xew-xew bi amoon na am na ku meloon noonu ba tax yàlla wàcce woon aaya waaye nanguwuta saxal nag ne maanaam Saalaba la muy Mouhamadou Nasir ad-Din Mouhamadou Nasir ad-Din ñu koy wax Albani moom moo wax ne moom du saxal ne Saalaba la waaye boo xoolee li ëpp ci mufassiroon yi ñoom li ñu wax dañu wax ne Saalaba la dañu tudd turam wax ne moom la su suñuy nettali ci nettali bi itam lu ci nekk dañuy tudd turam wax ne moom la ba moo tax itam looloo tax ñu indi turam moomale ko li nga xam ne moom mooy qissa bi amoon ba tax sunu borom wàccee aaya yooyu dañoo wax lekkoon dafa ñëwoon ci yonent bi alayhi waxoon ko ne ko dama bëgg nga ñaan yàlla mu wërsëgal ma alal udu llaha yarzuqani maalan loolu la waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba yonent bi ne ko way xakka yaa saalab qalilun tu addi shukrahu xayrun min kasirin laa tutiquhu ne ko ah saalab te nga bañ alal ju bari daane lu néew loo xam ne la mu laaj ci sant danga ko man gën alal ju baree bari loo xam ne alal yu baree bari joo xam ne la mu laaj ci sant su boroom doo ko man te ngaa ñaan rek maanaam sutura kafaafa mooy lu yam rek lu doy lu faj aajo waaye ba mu ko waxee loolu tiiwut la ba dellu siwaat waxaat ko loolu summa qaala maratan uxra beneen yoon la ba waxaat la mu waxoon yonent bi ni ko man daal dama bëgg rek ñu ñaanal ma yàlla bu may ma alal ju bari yonent bi ne ko xanaa doo gërëmlu nga tànn mel ne yonent bi yàlla bi te booba boppam la ci jiblu woon ama tarda an takuna misla nabiyillah ni ko fuwal la si nafsi bi yadihi law shi'tu an tasira maa jibaala dahaban wa fidda la saarat ni ko ndax doo gërëm lu rek tànn la yénte bi yàlla bi tànn ne ko man day maa ngi waat ci màggu yàlla mi nga xam ne suma bakkan mi ngi ci loxoom bu ma sooban day montagne yi soppaliku or ak xaalis ma jëriñoo ko waaye tënnu ma loolu ñii sama mbir tëdd rek laa tànn waaye gis nga yonent bi daa waat san la ba daal di insister moom daal di waat moom ci bëgg-bëggam ne ko man it day walladi baasaka bilxaq la in daawta allaha fa razaqani maalan la utiyanna kulla zi xaqin xaqahu déggal loolu mu ne ko man de maa ngi waat ci màggug mi la yónni ci dëgg ci ne boo ma ñaanale yàlla ba yàlla wërsëga ma alal day danaa ci génne jëpp àq joo xam ne ju ca war a génn la ku ci am àq rek danaa ko ko jox ah yonent bi ñaanal ko yàlla daa di wax ne suñ boroom kon wërsëgal ko alal allahuma urzuq saalabatan maalan ak yàlla yàlla yàlla ko wërsëgal kon alal kon alal la bëgg may ko ko waaye gis nga rek suñ boroom daal di nangu ñaanam alal ji tàmbalee feeñ ci moom daal di jaare nag ci lu mel ni ak jur jur goo xam ne daa tàmbali di bari lool rek ni mu koy nettalee ci xadis bi nee jur gi daf doon yokk ni ay sax di yokkoo ay sax ni mu ni mu gaawee mën a bari ci la doon misaale ni jur gi doon baree ci ay loxoom tàmbale rek barkeb ñaanub yonent bi daal di ciy feeñ mbir mi di yokk rek fa daqat alayhi al madina mu dema dem ba dëkk bi xat ci moom ba xajatul ci biir madina ak juróom gi fatanaxaa anha fa nazala waadiyan min awdiyatiha mujj nee na daal di wàcc jur gi ci wenn xur woo xam ne mi ngi ci ginnaaw dëkk ba ndax daal jur gi léegi dafa bari xajatul ak ñoom ci biir dëkk bi mu génn jur gi ci bitib dëkk ba ci wenn xur nga xam ne léegi daal dana julli si tisbaar ak tàkkusaan waaye waxtu yooyu rek lay mën a julli si ndax bu fekkee waxtu suba wi da koy fekk ci war a yeewi ak jur doo am jot ngir dem ci jàkka ja su fekkee waxtu timis itam da koy fekk ci yeew ak jur ba nga xam ne daal moom bëcc gi rek la man di dem di jullee ji ci biir dëkk ba muy julli tisbaar ak julli taksaan nga xam ne man mu mulaaxasa bi ma am foofu sax mooy alal moo am dangar daal te seytaane bari doole te bakkantam doon ko doy waar waaye sax boo xoolee dangay gis ne mi ngi góor góorgóorlu daal comme génn na ci dëkk ba ne ci xurwa te ndeysaan tiwul bi tisbaar jotee dana jiim ba ñëw julli si bu tàkkusaan jotee dana julli si da gis ne kon sax moom ndeysaan am na lu des ci moom daal mi ngi mu ngi mi ngi góorlu day mel ne li ko dal da koo da koo gaar daal waaw dangare alal moo dem ba ëpp ko doole waaye da gis ni sax mu ngi doon ñett ñetti di yéeg waaye rek buñ ko toppee mujjantal ga dafa mujj wàcc ndax gis nga sax dana julli ji tisbaar ak takkusaan door a delluwaat ca xurwa ndax bari jur ga waaye ndeysaan bi mu demee ba yàgg rek jur gi daal di yokk daal di gën a bari jur gi daal yokk daal di gën a bari su ma su ma nammat wa kasurat ba tax na fatanaxa xata taraka salawaat illa al jumaa jur gi daal mujj yokk dal di gën a bari mu gën a randu mu gën a randu ba sori dëkk ba sori koo xam ne léegi ak ajjuma rek la mën a julli si tisbaar ji ak saan bi sax ndeysaan mënatu ko fi mu ne ndax daa gën a sori léegi ajjuma rek la mën a julli si nga xool ba tey rek ndeysaan ba tey rek mi ngi jéem di di jafandu mi ngi jéem di jafandu nga xam ne bu ajjuma jotee sax gis nga ne dana bëri bakkanam ba jéem a ñëw ci dëkk bi julli ajjuma delluwaat kon xam nga ne ma ngay def waxtu julli juróom ginnaaw bu ajjuma jotee sax dana ñett ñetti ba ñëw ci dëkk bi julli ajjuma dellu kon gis nga ne ba tey sax ma ngay jéem di di jàpp diineem di julli waxtu julli juróom bay julli si ajjuma waaye rek alal bayu ko ak dangaram jur go yokk di bari ci ay loxoom ndeysaan mu mujj dem ba nga xam ne ajjuma ji sax daa mujj mënatu koo julli si ajjuma ji sax daa mujj mënatu koo julli si ngir bari jur gi nga xam ne léegi li muy def rek mooy bu ajjuma jotee comme day gëj ca dëkk ba te léeg mu bëgg a xam lu fa xew dana faral di def léeg-léeg buñ tollee ci julli ajjum bay wàññiku ba nga xam ne jàpp na ne ñu julli ji woon dëkk yu ndaw yi nga xam ne jege nañ Madina te julli see ci Madina war nañoo toll ci wàññiku daana leen kar ci yoon wi di leen laaj xibaari Madina bu ko bëggee xam dara daal daana def noonu yatalaqa rukbaan yowmal jumaa yasaluhum an al yi jóge madina julli ji woon ajuma jëm ci dëkk yooyu di leen laaj xibaari madina ndax gëj gum ndax ajuma ci léegi mënatu dem ndeysaan maanaam mbirum Saalaba nag bari nay seetantal ndax fii ma toll nii kenn ku ne mat na mën na cee bàyyi xel boppam kenn ku ne mën na cee xool métier ab liggéeyam ndax gàllankooru ko ci ay waxtu julleem ndax buntu fàggukaay ba muy wute la muy dunde muy am amam ndax topp ko ba tax koo sàggane waxtu yi sunu borom yi subhaanahu wa taala loolu kenn ku ne ci noonu rek am na ci njàngat ndax situation bu ba tey day teew maanaam mbir moomu mu ngi fi ba tey amaana am na ñoo xam ne wut lu ñu am tax na jumbul amaana sax julli ajjuma ñoru leen hmm. amaana sax julli ajjuma ñoru leen amaana sax jàkk ñoru leen kon loolu kenn ku nekk mën na ci bàyyi xel boppam waaye sax la ba daal fii la toll dem na ba ajjuma ji sax mënatu koo julli ji bi bi muy gëj ca dëkk ba bu bëggee laaj loo fa xew ak lu mu bëgg a xam ci julli ji ajjuma lay dab ci yoon di leen kar di leen laaj ci loolu la nekk ci loolu la nekk ba bis rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy laaj dal di laaj mbirum Saalaba maa faala Saalaba la wax waaw Saalaba moom ana nu mu def ñu ne ko ah kooku day doy na waar jur gi xat naa moom ci dëkk bi ba fi mu ne nekkatul ci dëkk bi daan na julli sax àjjuma waaye fi mu ne sax kenn gisatu ko moom day jur gi daal tàqale na ko dëkk bi daanaka xamatuñ ci moom lu bari waaw keroog sax ndeysaan yonente bi ne na way xa yaa way xa saala ba yaa saxla wax na ko ñetti yoon maanaam bu doon ci wolof mu ne cey saxla ba cey mel ni ku ko ñeewantu daal ndax gis na alal ju bari yooyu mu doon ñaan lim ko tàmbali yóbbu lim ko tàmbalee yàqal digganteem ak boroomam bi nga xamee ne loolu am na ab diir rek sunu boroom subhaanahu wa taala wàccee aaya sadaq aaya azaka daal nga ci lañu wara a sukkandiku ngir joxe azaka te mooy wax gi wax ne xus min amwalihim sadaqa tutaxiruhum wa tudakkihim biha da ngay jël ci ñoom azaka te loo xam ne da leen di laabalal seen alal te di leen sellal rek jamono boobu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yebal ñaari nit daldi bind lu am bind daal di jox war leen ci nañuy laaje asaka ak kenn ku nekk lam yor na mu ciy génne asaka ñu xamal leen ko yebal leen ngir ñu wër ci ay béréb ngir laaj asaka kenn ki mi ngi bokkoon ci bani Juhayn kenn ki bokkoon ci bani Sulaym mu yebal leen ñoom ñaar ñaar ñooñu ñoom ñoo jaar ci fi nga xam ne fi la ba nekkoon bañ eggee ñu wax ko ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen yebal ngir ñu laaj mbirum azaka mu daal leen laaj daal di koy wan mbind miñ leen jox ñu ko ni asaka ji di tëdde leen lu ci nekk ak lam cey joxe mu xool ko ba yàgg bu ne ah ma hazihi illa jisya ma hazihi illa oxtul jisya man daal ma adri ma adri ma hada déggal loolu mooy la yéen daal ni ngeen ko waxe moom gis naa ne taxi la daal lépp dëggantaan ngeen ma laaj ngeen ma laaj daal gis naa ne ak daan la daal tegiwut fenn lu dara lu dul rek lemp waaw man daal xaw ma lii lan la daane waaye léegi kon dem leen ba wàññi rek comme da ngeen a toll ci dem dem leen ba ngeen wàññi ngeen jaaraat fi ba xam waaw fàttalikul rek fàttalikul rek bi ko yonent bi wax naan ko tee nga ñaan yàlla lu yem loo xam ne la mu laaj ci sant yàlla danga ko man te bañ a laaj alal ji bare joo xam ne doo man àq ji ci yàlla namm boobu ba yonent bi waxee waat ci yàlla la def ni ko walladi baasaka bil xaq la in daawta allah wa razaqani maalan la utiyanna kulla zi xaqin xaqa loolu la defoon de dafa tegoon maa ne waati màggu yàlla mi la yónni ci dëgg ci ne boo ma yàlla ba mu jox ma alal jépp àq ji ci war danaa ko def tey nag biñ ko waxee àqi azaka nee loolu maanaam lemp la luñ koy laaj ci doole rek la waaye ëpp naa def waaye nga gis doomu aadama yi ni ñu wutee ci ay pas-pas ak ngëm-ngëm ndax ñoom bi ñu rëccee soxla ba rek jot nañ beneen waaye boo xam ne ci bani Sulayma la bokk moom déggoon na mbirum asaka ñu wax ne suñ borom wax na ci ba yonent bi joxe na ci ndigal ba kenn ku nekk war koo génnee nga xam ne moom njëkk ñiy laaj asaka di egsi ci moom dem na ci ak juróom tànn la ci gën a baax mu ber ko ne loolu lay jox yàlla nga xam ne ñoom ñi bi ñu egsi ci moom fekk nañ mu ber la gën a baax ci ak juróom ba ñoom sax dañ ne ko déedéet lii duñ ko jël war ta tëdd nii ndax azaka moom laajul la li gën a baax dañ laa laaj rek li nga xam ne moo tawasut mooy li digg dóoma ci sa alal lool lañ la laaj lool lañ ko wax dañ ne ko maa yajibu alayka hada wa ma nuridu an naquda hada ank waaye mën leen balaa faquzuha fa inna nafsi bi dalika tayyibun daan waaw xam nga ñoom dañ ne ko duñ jël li lii ëpp na xoolal rek li digg doomu waaye lii moom duñ ko jël ci yow li digg doomu rek nga ñuy jox mooy leen déedéet jël leen lii lii ngeen ngeen jël lii mooy li ma neex sedd na lool ci sama xol ngeen jël lii fa inna nafsi bi dalika tayyibatun tey na ci sama xol suma xol sedd na guy ci ngeen jël lii lii laa tànn ngir jox ko yàlla ñooñu door a jël loola kon gis nga sànq la ba ni mu wuuteeg jëmm jooju toll nañ fi ñuy yëkkatee xaaj bu njëkk bi suñu dellusiwaatee rek dikk yéen ci ñoom bi ñu wàññi ca yoon wa ba jaaraat ci sànq la ba. la mu leen tontu ak ba ñu delloo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci xew kon buñ ci dellusiwaatee ak yéen rek topp ko incha allah ak jërë ngeen jëf